aousu billahi samil alim min asheytan rajim bisimillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñëwaat naa ci beneen facette waaye lépp nag lenn rek lay nag na shatta wa ma naka waaye dafa kullu ilan sa kabal yu siiru ñu ngi fàttali suñu bopp di fàttali mboolem taalibe yi taalibe yi nag bu ñu ko waxee dañuy tamise mboolem muqaddam yi Cheikh Ibrahim ak képp ku nekk taalibe te nekk nekk ko muqaddam yaa xam ngay góor yaa xam ngay jigéen yaa xam ngay mag yaa xam ngay ndaw ci conférence boo xam ne war naa am le onze ak le douze ci mbine Cheikh Ibrahim ci kër gan kan moo koy def borom xam-xam bu rëy bi kan moo koy def ni ku ragal yàlla ki kan moo koy def nit ku maandu ki kan moo koy def ni ku am tawfiq ki kan moo koy def borom xikma bu rëy bi kan moo koy def koo xam ne jàng na ba jàng jotee ba xam lépp lu war a xam ci te mu nekk ci keppaaru Cheikh Ibrahim fa généralu ya wi tata zilli muhammadin wa yabuda rabban jala shanan muwahida fa masana sayan gayru asa fa sannuhu saqimun alilun batilun lan yu ayeda ruwaydukum ahlukan lan taro madada annaka anna qatra muhammad sallallahu alayhi wasallam kooku mooy kan mooy a seydi eh, Bokar Ñang nga xam ne waajuram doomu Cheikh al Islam la waajuram xam ngeen ko ku tedd ku tedd doomu ku tedd kooku nag moo war a conférence bi entre le onze ak le douze hmm? kër gan te mu koy defee ci làmmiñu bàyyi international la koy defee international la koy defee discours boobu programme boobu conférence boobu conférence internationale la mboolem koo xam ne moom ca xalaat di def international la moom jëfam yépp international la ndax la muy wax ak kam fay jàngale ak kam fay wax kooku mooy international kon lépp international lay doon même buñ tamisee dañuy leeral rek waaye dama ne international mooy conférence boobu ndax wax jaaz yépp international la xam-xam ba fa xam-xam may wax xam-xam international lay doon nekkul nekkul xam-xam national xam na mooy lan mooy wolof kese waaye international xam-xam sax international la kon lépp international la kooku na nga xam ne suñu soppee la sax nag wax di yàlla Boucar suñu soppee la suñu xarit la suñu sëriñ la ku baax la ku set la ku seddal la ku am tawfiix la ku yàlla dimbali la ku yàlla am lijaabali la borom maqaama la borom martaba la borom lijaaba la borom xikma la yootul xikmata man yasa u wa man yuuta xikmata faqad uutia xayran kasiran wa maa yazakkuru illaa ulul albaab kon ñu ngi oote mboolem taalibe yi gaa yi bu kenn tari loolu yéen ñëpp ñu ngi leen ne oo ci conférence boobu na fees del del del ba kenn am fu mu taxaw lii mooy ndamu waxkat gis nga waxkat boo seen dafa gis ñu muy waxat te am na solo de fekk lu am solo la nañu dem ñun ñëpp mboolem muqaddam yi nañ fa dem taalibe yi nañu dem na na bara ba fees kër gan rëyut nañ ko feesal bu ko boo bu feesee del kii wax day kontaan bu waxtaan di xon di xool mbindaafoon yi mbindaafoon yàlla yi nga xam alxalqu xiyaarullahi yi mbindaafoon yi ay njaboot yàlla lañ te habum ilala an foom li xiyaal yi ki gën njaboot mooy ki wax ki leen dundal te moo ñëw dund leen ci ci ci xam te xam-xam moo dundal de ah yàlla ko ware yaa lazina amanu istajibu lillahi wa li rasul isa dahakum lima yuhyikum wala mu ànd la yow benn mara wala xal bi kon maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen dokkeel bàyyi bu day neex international di doon wasalaamaaleykum wa rahmatulah jaajëf Cheikh Ibrahim